maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di wax na inna lillahi wa inna ilayhi rajiun di am naqar ak tiis ci sunu confrère yooyu nekk aduna te génn àdduna mu nekk mbir képp kuy reporter wala ngay jeune reporter metti na la daal parce que ay yu yu amoon engagement lañu xam nga surtout boy boy euh, yoro nek sunu boy nekk sunu copain wax dëgg yàlla sunu frère nek boy bu respectueux franchement bu daan jógee Dakar ñew fi zone nord bi manam Louga euh, Saint-Louis Podor ba Matam respect bu ma sëkk lay jox cameraman yi ku mu fekk sur le terrain daf lay jox cër bi nga moom du xëccio du yësal image jaraloon na ko lu ne daan ñew ndeysaan bu jaré ram sax tay ram di jël ay image respect doomu adama mu nekkoon boy bu ma estimé won franchement fi ndar cameraman yi nekk ndar yépp dañ ko estimé won ndax yaram xam nga ndax yaram ñi ngi ñaan yàlla yal na leen yàlla jéggal yàlla xaar leen ajana suñu confrère yooyu noonu reporter yi nekk leeral te nga xam ñoo décédé aussi yal na leen yàlla yërëm jéggal leen xaar leen ajana di waxaat état bi aussi si nekkinu reporter yi parce que ñun bu ñu toppee convoi yi aussi di daw euh, maanaam protection bi war dafa des gars yi dañuy insister trop si autorité bi maay force de l'ordre yi les gendarmeries ainsi de suite dañuy dañuy insister trop si autorité bi ba telle sorte que dañuy fàtte euh, les organes de presse maanaam waaw les reporters quoi da leen di fàtte parce que booy seet en majeure partie euh, cortège accident yi li su ëpp si oto presse bi lay lay féetewoo kon je me dis que kon euh, ni ñu war a toppatooyee presse bi au moment des des des des reportages wala ci tournée yi dafa des waaw ah, parce que autorité bi ni koy protéger je pense que noonu ngeen war a protéger les reporters parce que y' a tant de reporters wala tant de caméramans yoo xamante ni accidenté nañu wala def nañu ay choc yoo xamante ni lu mënoon ñàkk la kon war nañu. L'autorité autorité bi day ministre di si convoi ni les reporters voiture reporters ni position parce que avons une position position day a l' premier chute nous avons ba bu premier chute devant les autorités ce qui fait que un peu loin de l'autorité, kon buy buy buy doubler buy doubler pour pour devancer euh, véhicule autorité bi day metti te man xam ni ñakku ni boy biñuy biñuy bi doubler peut-être position biñu ñu mo baaxul pour premier shoot bu ndeysaan pour dem fa ñu ngi ñaan yalla ngeen bayyi xel ci côté bobu non ñu xolaat nekk nu les reporters et les cadreurs ñun zone nord bi ñun xam nañ ci dara ku si mel ne suñu doyen Abdou Boye ak keneen ak keneen ku si nekk am na obstacle boo xam ne mas naka dal ci reportage wala si tournage wala si euh, kon nak gaay de grâce nañu bàyyi xel cadreur yi nañu bàyyi xel reporter yi nga xam te ni dañuy top convoy il faut que ñu leen di surveiller di xool seen position par rapport ak autorité bi parce que bu ñu nekkee ligne presque ay 15 auto nekk suñu kanam yu bëgg dàq autorité bi otom pour jéem a jël balaa muy wax si oto bi ñu jël chute boobu noonu loolu dafa compliqué ñu ngi ñaan di yàlla booy yi nga xam te ne ñoo ñàkk seen bakkan ñu nekkoon ay booy yu engagé wu ku si mel na booy yoro franchement pare man bu ma yëgee affaire bi am naa métti trop trop trop trop parce que dama ko xam mu nekk booy bu engagé wu mooy am fulla am fayda am yar bu fekkee bàyyi nay soxna wala bàyyi nay njaboot ñu ñaan état ñu bàyyi ci xel wala seen organe de presse ñu bàyyi leen xel ñaanal leen yàlla defal leen jàmm yal yàlla jégal xaar leen ajana ñu ngi jégal nag parce que ñu habitude sax di wax si ay télé ñu si gannaaw caméra rek la ñuy nekk mais ñu ngi sant ñëpp daal di jaale ñëpp nag bépp cadre bi nekk ci Sénégal ñu ngi la koy jaale ñu ñaan yàlla yàlla fi gëj ñu ngi jégalu si cadre yi jërëjëf